gannaaw bi nga xam ne rek def ngeen seen réunion ba noppi Koungheul FM ak Koungheul Info ñëwoon seet si leen mereka, rek ngeen waxal ñi rek li nga xam ne moom moo riche ci ndaje bi ngeen fi def voilà donc ñëw ngeen fekk commission bi ma jiite daje pare xëy du woon commission bi yëpp dafa am rek ñu ci tànnoon pour ñu am xalaat bu ñu def pour que le comité départemental mën cee sukkandiku parce que ñu ci démb lañu nañu kat lu jàmp laa leen di sant mooy euh, gouverneur nee na war nañoo xayma lii liggéey bi nga xam moom mooy journée nationale de l'élevage li ñuy soxla ci euh, lu ko mën a toppatoo bu ñu wooyee ñu ne nag foog ñu def budget mu xelal ñu ne ñu xëy na du ngeen woo commission yëpp ñu tànn leen ci biir des personne ressources yoo xam ne bu ngeen dajee ci sa bureau ngeen def proposition bu mu wane ngeen indil ñëpp La ba commission bi commission accueil hébergement restauration am ñu fi donc honorable député Amna na ku adjoint sous-préfet Lour ah, le maire de Kungal Amna le chef du service départemental du sport le chef du service départemental euh, du développement communautaire la présidente du DIRFAL Nyon, président INOS Nyon. Euh, ki jiite organisation départementale jigéen ñi ñëwoon na donc conseil communal de la jeunesse ñëwoon na le chef de service régional départemental de la jeunesse mu ngi fi woon donc ñooñu daal la ñu woowoon ne lañu xalaat ci budget bi mbooloo mi nag bi mu toogee am na lu ñu tënk donc xëy na du ñu mën a joxe détail bi dinañ wax rek globalement ne budget bi xayma nañ ko ci cinq millions six cent cinq mille sous réserve nag mu dem ba ci préfet mu yokk ci wala mu wàññi ci parce que loolu aussi ci prérogative comité départemental la ñun sous commission bi proposition rek la ñuy def yónnee ko li ci des en tout cas c'est le département moom mooy tranché mm-hmm. ñun daal loolu la mbooloo mi euh, tënkoon budget bi nag li ci am solo lépp restauration bi rek la parce que euh, mbooloo moom ñi leen di dalal mbooloo mu am solo ñun nag li ñu xayma mooy Euh, région bu nekk xayma nañ dina indi juróom fukki nit lu mu yées yées ñu am ci Sénégal fukki région ak ñeent xëy na kon dinañ dalal 700 personnes loolu mooy peut-être participants yi maintenant nag du tee dinañu participants yooyu def nañ seen xayma nañu li ñuy soxla ci lu leen lekk ci lekk ak naan donc loolu xayma nañ ko ba xam ne ligne bi nangam la dinañu fi recevoir également ay personnalités. parce que kuy recevoir journée nationale de l'élevage gouvernement bi yëpp dinañ ci ñëw donc tous les ministres seront là donc ñooñu xëy na dinañ am traitement spécial euh, Députés yëpp dinañ ñëw wala lu ci gën a bari euh, maire yi ñëpp dinañ ñëw parce que lu jiitu journée nationale de l'élevage am na également maire AMS association des maires du Sénégal dinañ ci def ndaje donc am nañ yaakaar ne maire Sénégal yëpp dinañ ci daje donc boobu it mu nekk beneen groupe donc ñaari groupe daal lañ ko def groupe participants yi ak groupe boo xamante ne peut-être mooy euh, kilifa yi nga xamante dinañ ci ñëw donc ñooñu ñëpp xayma nañu li ñuy li ñuy soxla. donc euh, gannaaw loolu ñu waxtaan ci en tout cas euh, budget bi xayma ko muy 5 millions 605 mille loolu nag boole nañ ci lekk gi naan gi pour ñaari délégat pour ñaari groupe yooyu boole nañ ci. Euh, lépp loo xamante ne daal soxla nañ ko pour commission bi mën a dox euh, gannaaw budget boobu waxtaanee nañu également doxalinu commission bi def nañu lu ñuy wooyee calendrier de travail mooy gannaaw réunion tey bi ajuma bii di ñëw le vendredi 13 soxla nañu commission bi ñi ci bokk ñëpp ñu ñëw donc bu ko defee bu ñu ñëwee dinañu def lu ñuy wooyee calendrier sous commission ñu ne sous commission bu nekk bi sàngam di ngeen daje waxtu sàngam di ngeen daje euh, sous commission yi également danañ leen defal lu ñuy woowee feuille de route maanaam euh, sous commission bu nekk par exemple am na ñetti sous commission am na sous commission accueil ñooñu accueil rek la am na sous commission restauration ñooñu restauration rek la ñuy def am sous commission hébergement commission sous commission bu ci nekk ñu ne li ma sa feuille lii lañ la sas ci liggéey bi bu ko defee yow nga dem fële def sa ay ndaje semaine boobu yëpp ñoom ñu def seen ndaje def seen liggéey bu semaine ba jeexee ba ñu demaat ba vendredi ñëw jotaat ñu dajawaat defaat waxtaan joxewaat ay ndigal donc noonu daal lañu ñu xalaatee leneen li mooy yéen xalaat nañu ne également yokk commission bi gën ko yaatal parce que lu mel nii li ñuy organiser accueillir fi mbooloo mu toll noonu ak accueillir fii euh, def fii restauration bi hébergement bi loolu diis na donc lim bii ñu préfet wax rek buñ ci yemee parce que moom moo ñu jox ndigal ñu yaatal. donc yaatal nañ ko ñeneen donc wax nañu léegi ak monsieur le maire ne ko bii réunion bi di ñëw soxla nañu délégué de quartier yëpp ñu ñëw nee fii am na juróom-ñetti quartier délégué de quartier yëpp donc officiellement woo nañ leen réunion boobu ñuy def le vendredi 13 bu ko defee ñëw bu ñu ñëwee dinañu jàppale parce que dal yëpp ci quartier yi lay lay am donc te waa quartier bi également bëgg nañu seen participation ci lii ñuy def dañ ko yaatal également ak ci jigéen ñi bu ñu koy wax rek jigéen ñi ñoo koy def xayma nañu ñaata toggkat la ñuy soxla donc te toggkat yi duñ jógee feneen waa Koungheul lay doon donc euh, bëgg nañu également woo mbootaayu jigéen ñi képp ku yor mbootaayu jigéen euh, en tout cas dinañ la boole ci biir commission bi. dinañ jox badge am fu ñu yóbbu ci liggéey bi yaa xam accueil lañ la yóbbu wala hébergement wala restauration. dinañ ko yaatal également ci jeunes yi ah woo nañu président comité euh, conseil communal de la ah, bii ñëw dinañ woo président ODCAV mu ñëw. de woo président zone yi ñuy donc ñooñu bu ñu leen wooyee c'est pour que ñu gëna en tout cas am emprise ci xalé yu góor yi xalé yu jigéen yi parce que ñooñu aussi dañ leen di soxla ci mbirum orienté gan yi hein, ci mbirum accueillir leen ci mbirum restauration service, hein, lekk yi donc lolu parce que buñ ko toggé ba noppé il faut que ñu jox ko nit ñi donc lolu dal lañ fi waxtané donc taxawal nañ calendrier wu liggéeyu commission bi euh, bu aljuma dinañ taxawal calendrier su commission yi yaatal nañu également commission bi ba incha allah dinañ ko dinañu gën a gis participation bi dina gën a yaatu. Hmm. donc daal loolu la commission bi liggéey tey incha allah bu ngoonee dinañ jébbal euh, préfet lii ñu def nga xam ne projet la rek. Hmm. buñ ko ko yóbbulee mën na ko amandé mën na ci changer lu ko neex. bu ko defee da koy intégrer également ci yeneen. Euh, budget yeneen commission yi am nag budget global journée nationale yóbbul ko gouverneur gouverneur yot ko ministre bi ñu xam ne kat waa nga lii lañu soxla pour mën a def journée bu mucc ayib loolu daal mooy doon solo waxtaan bi jërëjëf waaw préfet am naa benn kàddu ñu benn question rek balaa ngaa coupé. Mhm. commission bi nga yor dafa diis euh, mhm. muy accueil restauration ak euh, hébergement. Mhm. mu dégg nga wax plus de ay 700 personnes ou bien dina ko romb. Koungheul dañuy xayma ne dañoo seetlu ci Koungheul dëkkuwaay dafay jafe. est ko seen ne est ce que dëkk yi environnement ko mel ni Koubantoum wala Kaffrine ay ko mën a dalal. parce que dëkkuwaay dafay commission bi euh, comité départemental bi. préfet département euh, ciblé na école yëpp xam nga 700 yi ñu wax. moom mooy délégation officielle. dina ëpp foofu. dina ëpp loolu mais officiellement dina am nag ay délégation yoo xamante gouverneur bu ci ne danaa man samay limu mbooloo ñii ñooy ñëw. léegi nag xam nañ ne président de la république la ñuy accueilli. dina am ay responsable am ñoo xamante ne dinañ indi lim boobu boobu tool boobu noonu. ñu itam dinañ ci def seen doole.

dëkk waaye hôtel auberge yeeg ah, dëkk ñëpp ñoo xam ne dañuy dalal am na borom volonté yoo xam ne aussi joxe nañ seen kër ay borom kër yoo xam ne ay ñoo xam ne sax appartement lañu am ñii néeg lañu donc lu ci waaye am rek joxe nga def nañu réunion ak cadre ñoom ñëpp wax nañu en tout cas li ñu ci euh, ku ci ne li mu ci bëgg def ñii ne nañ dinañ joxe seen kër ñii nee nañ dinañ joxe seen appartement ah, école yi préfet jër na ko bon c'est vrai que euh, ñu ngi ci pour parler également ak euh, waa Koupentoum pour xool ndax dina am ñu fa mën a daal. Mhm. ak ñi dëkk ci région yi aussi ñi dëkk ci département bi euh, dina am ñu àndale xëy na duñ fi duñ fi fanaan. Mhm. parce que Kaffrine sorewul Malem Hodar sorewul Birkelane sorewul même biir Koungheul département yenn yenn communes yu bëri sorewuñu. ñooñu ñëpp dinañ mën a xëy si ñëw xëy na dañ fi yendu rek mhm. duñ fi fanaan. donc ñu ngi daal en tout cas ci pexe war mu mën a dalal ñëpp. loolu daal moom mooy euh, ba yi ñu am ci bu ñu jógee ci lii dinañ def tournée ba xam réellement lan mooy capacité d'hébergement yi. Mm-hmm. ak bëri bi nar a yóbbu nit ñi nan la nag. Mm-hmm. donc loolu fas yéene wuñ toog rek euh, di xaar dem ba ci bërëb yi nga xamante ne yaakaar nañ dañ fa dalal gan yëpp ñu dem foofu. dina am peut-être école yoo xam ne dañ fa def ñaari région wala ñetti région mm-hmm. ça dépend donc léegi rek fii am na ñu naan euh, ci lycée bi mën nañ fa dalal ñett ba ñeenti région loolu yëpp nag foog ñu dem ba ci terrain bi. xayma ko xam ñaata salle de classe la ñu am euh, bu ko defee ñu mën a ñu mën a recenser loolu yëpp jërëjëf.